asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi mille janvier 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi moo xam sunu làmb la La Tribune wala Leewtoo TV bu dee yëglekaay biir sunu làmb la moom ka fa xëy tey ngar daajoo ko di fa wax mooy la Lion de way muy Balla Gaye 2 Balla nag daa mel ni moom la mu waxoon dajaa génn sunu làmb nag moo xëy tey wax ñu ko ci xalima ak Abdoulaye Dembélé Balla daal nee na li leer ba leer moom comme sax d'accord d'accord ne day may Boy Niang saas nee nag jiwoo maa ko nangoon nangootuma ko mayeetuma la sens bëreetuma ak yow loolu daal la Balla gay numéro 2 tey xëy wax ki nga xam ne moo di Boy Niang nee na parce que li tax mooy Boy Niang defu fi dara loo xam ne nii war na koo may muy bëre ak man maanaam daal prouvé wul na wëri yeneen adversaire ndax man duma moroomam waxi Balla Gaye numéro ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb ñu ne ko waa léegi nag nooy def ak ñuy say adversaire bal ne leen samay adversaire xam naa ko tiyéen xam ngeen ko du kenn ku dul borom taq ci rib tafaatin ak ki nga xam ne nii mooy Gris Bordeaux troisième tigre de Fass ga ak ka nga xam ne nii mooy Bombardier que dégg roi des arènes ñaari yoon bal ne na ñii daal ñoom ñett ñii moom ku ci ne adversaire de taille nga pour man waaye waxi Boy Niang moom bal ne na ko demal nga toog bëriwuma ak yow tey waxi Balla Gaye numéro 2 ka am combat moom ab manager am xëy di ca wax mooy Siteu Siteu bu Lamsar père Maxime Bargane nag ma ko yor moo xëy di wax parce que nag dañ naan ay risque du risque ci moo Papa Sow max ne na leen li leer ba leer yéenay wax risque waaye lii moom nekkul risque tey ci Siteu nekku ko suba Siteu risqué wul combat nag am na ko bu am importance diggante ma ki nga xam ne moo di Papa Sow te itam ndam bu ko ci jëlee bu soobee yàlla day relancer la nga xam ne moo di carrière am loolu mooy ki nga xam ne nii moom moo di père Maxime Bargane ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb waaye leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci yëglikaay bi di sunu làmb muy ki nga xam ne mooy biram njëng moom tamit xëyati na fa di wax ci diggante ki nga xam ne nii moo di Modou wala boog combat Modou bi nga xam ne nii moom la ñuy wax ak Ama Baldé biram xëy na di ca wax waaye am na ñeneen ñoo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii moom ay mbër la xëy tey di leen dëkk muy giri siñoor bu école de lutte Cheikh Mbaba moom daal ñamu tàllal loxo mooy bulldozer ak ki nga xam ne moo di jokkeel loolu la xëy tey di wax lii daal la ne ñii moom ku ci ñëw mu bëre ak yow Batista moom mook Aline Mbaye Nder combat ba taxaw na le 18 avril yëglikaay bi ne na ca lañ koy def waaye am na beneen xale boo xam ne itam yëglikaay bi xëy na séq moom waxtaan muy Zal Bawol moom nag ka mu na ñëw ma corriger ko Zal Bawol bu la xëyate ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu la tribune buñ fa demee xëy di ko laaj waaye bu ñu demee ca Leewtoo TV moom mu mel ni ki foofa moom la fa amoon démb neex na trop doxoon ci diggante Modou Dia ak Thiat ndax démb daal la prince taxawal seen combat ñu jàkkaarloo fa nga xam ne mooy ca Yoff waaye ka nga xam ne daal moo di Modou Dia moom mayul Thiat fu mu yëkkee ak nàkkam ne ko boo yeboo nga wax li ngay wax ndax lu ci mën a xew moom dama lay duma daan la ndax maa la dàq bëre te maa la ëpp doole te fitit maa la këpp Thiat ne ko yow da ngaa bëri wax di wax rek da a wax waaye li nga yaakaar ba tax ngay wax lii moom boo yeboo nga toog ndax jonwaar ga ngay wax dëkkoo fa te itam la yëgut wax nañ ma ko te buñ ca yeggee di nga ko réccu ndax dinaa la wan lu méttee méttee métti loolu daal mooy la nga xam ne nii moom la ñaari mbër ya waxante waaye laay goote tamit mook daa ba tey ca Leewtoo TV fa fa itam tàngoon na jër waa inaak waayu Cees ñoo ko tëgg booba combat itam daal dinay taxaw waaye leneen loo xam ne am na démb muy aada faas may waaj a bëri ji samedi la nga xam ne nii moom moo di ca stadium Iba Mar Diop diggante ba ka nga xam ne moom moo di bébé bis mi aada faas nag dem def na open press fa nga xam ne mooy ca faas waa faas yépp na mét dig na lu méttee métti bébé bis mi ngir samedi ne na ko bu ñu ca yeggee dinga xam ne bu dee bëri la maa ko ko dàq def te lu mu mën a doon itam maa ko ci man ndax maa ko gën a doon gune te moom du moomay téye ndax xale ya mu daan ak yi du ñu benn wala ak gune yi moom dañ dul sax benn loolu may waxe ki nga xam ne nii moo di Ada Fass mel ni foofa nag Fallou Ndiaye moo fa jaar waaye leneen loo xam ne tam buñ ca jógee dañ cay dem da ca dimanche ja ndax nag promoteur yi ñoo jëlub drapeau tudde ko Matar ba teg juróomi million samedi wala boog dimanche ca stadium Iba Mar Diop Pape Abdou Fall ak ña àndal ñoo ko def waaye ka nga xam ne ni moo di Mbaye moom ba tey ca Leewtoo TV mu nga jëm ca dimanche ja arène nationale deux siga la fa tëgg ak ka nga xam ne nii moom moo di adversaire ba muy dajeel dajeel mu mel ni ki daal kon lamb ji nar naa jax ci weekend bii nga xam ne ca la ñu jëm waaye li leer ba leer daal mooy li gars yi doon xaar démb muy Sadio maane mi ñu doon xaar ci réew mi te mujjut a ñëw la ko waral nag mooy fa muy liggéey muy Liverpool te yàgg nag yaakaar naa ne gane neex na lool waaye liggéey da koo gën a doon farata ndax nag hôpital yi muy tabax ci réew mi ak li nga xam ne mooy jàkka yeeg ecole yi fa muy liggéey di Liverpool la koy amee kon nañ ko bàyyi mu wuti xaalis looloo gën a doon farata bis bu amee ak jot ñëw ngan gi du paase nan ko ñaanal gudd fan ak wér rek te daa am lu mu dëgmal championnat la bëgg jël ci Angleterre te yal na ko jël. mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen gërëm di leen maa di la ngi ah, la delloo ziar yow tamit di nuyu internet yi ñuy suivre ci Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk rek ñu leen di nuyu di leen ziar waaye di nuyu ki nga xam ne nag moom mooy Mor Diouf ca Patersen maa ngi koy nuyu di ko jar gis nga peel bi moo fi génn tey Mor borom Petersen bégee naa ko. teel nga may dédicace daal Babacar na nu ñëw si sunu lamb sunu lamb na te fa xëy dalal ki nga xam ne mooy Balla Gaye loolu yoon a géej waaye Balla Gaye daal comme li wax rek waaw wax waxeet la def nee na daal bàyyi na dootul dootul euh, bëreeteeg bu ko kenn waxati ak euh, Boy Niang nee na na prouvé bu balaa muy balaa mu koy défier mu ne daal euh, warul brûler étape pour mu bëreek moom. waaw maanaam maa waxoon waxee daal laa ko la ñu mën a wax kon maanaam moom nangoon na ne dina ko may chance bëre mais jàpp na ne comme léegi sax moo ko nangoo nangootu ko parce que da bu ko defee ça veut que jotagul waaw loolu comme li may wax la rek si combat bi yàggoon naa koy wax que ni combat bi moom ci taxaw bi muy am pour mu gaaw ci Balla lay dépendre yaa ngi dégg moom bu ko neexee moom comme la ma waxoon moom mooy talal loxo Boy Niang may ko sens waaye nag am na droit tamit bu dee daa gis lu taxaw tax mu ne moom du bëre ak moom moom am na si droit parce que tamit li ma la wax la rek kaay ñu bëre du force yaa dégg parce que booy Niang ak Balla Gaye du Boy Niang rek la mën a bëreel Boy Niang du Balla Gaye rek la mën a bëreel seeni adversaire bari na tey Balla cité na ko yaa ngi na moom ne na parce que bu dul Boy moom jàpp na ne Bombardier adversaire am la effectivement. Tafatine ak Gris. voilà ak Tafatine ak daan Balla bu dee Tafatine Balla da koo daan bu dee naa foofu tamit ay combat revanche am na fa te ñett ñooñu ku mu ci amit bu neex a neex lay doon Boy Niang tamit ay adversaire am du sori foofu ndax digganteem ak Tapha yaakaar naa itam làmb ju jaadoo jaadu la yaa ngi dégg Gris Bordeaux itam mën na mën na bëre ak Boy Niang parce que gis naa fan yi ñuy ñuy ñuy sànnante ay xeer kon pour wan la ne daal euh, mbër moom bu kenn visé kenn rek ne sudul moom duma ma bëre déedéet adversaire yi bëri nañ fii encore une fois lamb mooy tëddee noonu terewul nag lamb mayante sens la ciy am. Balla Gaye de war na mën a may Boy Niang sens waaye du ñu koy forcer déedéet moom da koy bëgg mu am su ko bëggul am na droit du ko may sens waaye loolu du tere Boy Niang bëri parce que comme ni ma la waxee am na yeneen raccourci wala yeneen bunt yu fi ne wala yeneen mbër yoo xam ne nii làmb boole na ñooñu ak booy Niang encore une fois waaw Euh, journal bi tamit xëy na dalal ki nga xam ne mooy Max Margane nekk manager Siteu moom daal la mu gis nee ni moom d'accord ñi di wax naan Siteu kanamu Papa Sow risque la moom nee na loolu du risque si moom nee na tamit combat bi nii euh, am na yaakaar daal que Siteu dina si génn teg si ne su su amee nag mën a relancer carrière am. waaw bu ñu ñëwee ci cadre sport day wax ta wax rek te yàlla tax bu ñu xëy ci sport moom yaakaar naa risque mënta am ci diggante Siteu ak Papa Sow gisuma ko ci def risque waaw par rapport ak nag bëre moom adversaire boo mën a jël. jàppal daf la bëgg daan Papa dafa bëgg daan Siteu Siteu bëgg daan Papa Sow mais ñoom ñaar làmb daf leen boole làmb da leen boole parce que li tax mooy Papa moo mag Siteu si làmb ëppale ko ay combat yu mu yu mu am ci làmb ëppale ko ay ndam bëree tey ba yegg si fi mu yegg si Siteu nag mérite ba mu am mooy rayante na xeex na ñafe ba yegg si fekk si leen kon yaakaar naa tey ku bëri ak guy gi ah yaakaar naa war nga mën a bëri ak Papa yaakaar naa làmb moo leen boole kon man gisuma ci risque boobu xëy nag euh, am na ñuy wax risque tamit ci benn côté xëy na mën nañu wax ci côté tey bu dee daa ñàkk combat bi si tax xale la xale la <laughs> waaw làmbam fi mu nekk nii yeggagul fu mu war a amee lu metti bay am lu lu naqari ci di maanaam mu ngi toll ci jeunesse sam nekk nekk xale yaa ngi dégg war a dem fu sore sore sori Papa Sow mën na ko daan am na capacité yu ko daan si tey itam am na capacité yu daan Papa Sow sport la rek nañ ko yemal ci cadre sport il faut que am ko ñàkk mais ñàkk gi du tax nga génn làmb ji moom de parce que kenn ku ci ñoom ci ñoom ñaar sa retraite des na. journal bi tamit sunu laa mi ngi xamal ne ab parcelle mbooloo moom depuis ay semaine ngi nii bu ñu commencé seen entraînement yi mais daal ñoom lu ñuy ñaawlu loo xam euh, te naqar ko mooy euh, Franc bu mu jigee États-Unis ba léegi tegu fa tànk daal pour ñëw entraîner. Franc kon na ñëw entraîner si Franc dem na si parce que nag écrit moom ku ci bokk. ak foo mën a dem boo ñibbisee war nga dem di entraîner ji ah xëy na nag yaakaar na ne est-ce que kon amul lu ko empêché parce que itam comme li wala fi wax rek euh, loo gis lu ne mu am rek am na lu ko waral waaw mais parce que Franc moom ci li ñu xam mooy yaakaar na ne nekkul mbër buy fay entraînement waaw xëy na nag xëy na am na ay raison yoo yu tax xëy na demagul waaye ñoom itam comme ñoom ñoo dëkk te xam nañ Franc xamante nañu am na loo xam ne war a régler seen biir laaj ko moom fu mu ne moom dina leen leeral bu bu bu leeree ku ci xam fa ngay taxawee waaye li am solo daal mbër yu mag yi maa ngi koy wax encore une fois nañuy dellu ci écrit yi nga xam ne ñoom ñoo tax ñu doon li ñu doon di dundal écrit ba di comme di entraîner ak xale yi loolu day tax yeneen sampion judduwaat ci yi parce que xale yi dañu am ci ñoom estim ba ñëw bokk ci bi kon xale boobu booy gis Balla di gis Modou di gis Eumeu Sène di gis Gris Bordeaux wala Bombardier wala Tapha Tine wala Gouye Gui wala Boy Niang wala Ama Baldé bi ñu ñëw di contact ak ñoom day am lu mu yokk ci ñoom waaw loo loolu sax laay dëggal te lool aussi loolu la Balla Gaye bëgg def ndax depuis bu Père Balla tawatee ba léegi moom moo jël entraînement yi teg téye ko si si loxoom moom daal objectif am daal mooy nee na dafa bëgg mbër yi mag yi fa nekkoon te xam ñëwatuñu woon entraînement ku si mel ñoom euh, les de ak ñoom euh, Elton ñoom ñëpp ñëwaat nekk benn say comme ça daanu mun a gañee suñu laamu door bi incha allah. say day boo ko waxee wenn say say euh, ñun ñi dëkk ca kaw ga dañ koy daal di xam parce que tax am na sayu boobu am na. saa yoo ko boo boo boo ko boo foree gi tax gi nag ba pare danga koy dajale ut say xànc takk ko mu nekk wenn say mooy tax nga mën koo yóbbu mooy dégg moo tax mbooloo am doole benn gi tax foo ko fekkee damm ko waaye aw say sayu gi tax boo ko bëggoon a dam tey yaay gaañu kon mbooloo moom yàlla sax wax nañ ko ci alxuraanam ji yaa ngi dégg waxtasimu bi abdillahi jamian loxi suñu borom la kon yaakaar naa mbooloo mooy doole Balla Gaye loola mu def loola defe naa ne desu parce que école ba moo ko def moom li mu doon kon tey su demee ba yegg ni fa bi mu yegg bëgg yeneen Balla Gaye am fa yeneen Elton am fa yeneen Les deux am fa mu revenir at per Balla Gaye xaw a wérat yi moom mu ñëw jëlaat relève bi pour ñu nekkaat benn liggéey continuer loolu moom defe naa ne la ko war la def rek dafa delloo naar bi xoromam mais di ñaanal père Balla Gaye Ndour tamit yàlla na ko yàlla yëkkati wéral ko meeg bopp bépp doomu aadama bu wéradi ba mun a delluwaat tamit ci xale yi waaw baaw ko suñu jógee nag suñu laam nañ dem fi nga xam ne mooy tribune nee ñu nag comme que euh, Tapha dafa paan adversaire ban mbër moo war a ñëw sauver euh, Tapha Tine pour mun takkaat ngeen Balla Gaye 2 mii na ko ñëw sauver <laughs> Bombardier na ko sauver Gris Bordeaux na ko sauver Boy Niang na ko sauver Lac de Guiers 2 na ko sauver dafa ñàkkul adversaire di lu tax jëluñu ko nag sëb la la ko bënn nga ca biir waaw Babacar suñu jógee na tribune nañu dem si Leewtoo TV ak Leewtoo point net foofu nag signature euh, présentation remise de drapeau bu Idi Thiam euh, président UNACOIS moom lañ fa doon amal démb euh, si si siège yu UNACOIS diggante daa daa ak ki nga xam ne mooy Laay Gote. waaw daa ak Laay Gote bu dee mënoo wax daa da ngaa taq. daa ak laay goote <laughs> la daa ak laay daa bu Texas ca Pikine ak laay goote waa Inakwa bu Thiès a ko tëgg tudde drapeau bi Idi Thiam président Inakwa muy lu rafet di ci nuyu Zal mbay mi nga xam ne ni moom moo ko jiite ànd ci ak ñoom ci waa Thiès yëpp ñoom sekk ak gars yi ak sekk ndaanaan ñoom ñëpp ñu leen di nuyu di leen ziar mu nekk combat boo xam ne bu nar a neex la ca Thiès lay amee ma ñang sumaare waaye la ma ca marqué dim mooy la laay goote def sif bu mu sif micro ba dekkal njugatin indi lu neex a neex ci bàkku bi lay mbër day bàkk mbër day kebetu mbër day tagg boppam laay góoti di mu def na lu doy waar waaye daal xam naa nar naa neex combat boobu yàlla nañ ko fekkee te tal ko amin Babacar si kàddu yoon leen tàggoo nag di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay Meso nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astane déjà Brahma Chéri Khadija di nuyu ki nga xam ne mooy Mbaye Sey Mbaye Sey depuis la France nuyu As Seck Chéri Khoudia Seck depuis Italie di nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Gueye euh, depuis États-Unis euh, Baye Fallou Diamagal Papa Site di nuyu ki nga xam ne moom mooy euh, samay doom Mame Diarra Grand Fallou di nuyu Penda Rokhaya Moussa. Moussa ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu depuis Parcelles Assainies nuyu aussi seen yaay euh, Khadija euh, chéri Astane ne Babacar. waaw tey moom sama nuyoo fa mu fu ma koy awalem ci biir kër gi yàgg maar laa ciy jiital borom Liberté 4 ah. doomu maa ngi koy nuyu doomu ndeyu Kempes ak bës ca yàgg maa ngi lay nuyu mais di nuyu Sophie mii ci kër gi tamit borom Liberté 2 Sophie joor Diak maa ngi koy nuyu di nuyu joor mi ci suuf joor Diop ah di nuyu Aïda Diouf borom maquillage bi borom Liberté 5. ah di nuyu kot su jama moom tamit borom liberté 5 ma ne leen ñaari 5 boo ko boolee muy 10 dara du fa xaj di nuyu Cédric séeri nan ah Cédric maa ngi koy nuyu di nuyu madame am daal loo ci mën a dégg di nuyu suñu DG Pape Thialis Faye moom itam di nuyu madame am. Chéri Raysa. ah Raysa ah Raysa madame Diédiou séeri Cédric di nuyu tonton jaw séeri ah moom it di ko nuyu di nuyu séeréem borom ADN. mami du woon a ñàkk séeri mami di nuyu biram ñu ngi séeri ndaa yaa ngi dégg. Thialis Thialis Amina waaw di ko nuyu di nuyu tey daal waa kër gi laay nuyu nuyu naa tamit intorno yaayu Yande waaw di nuyu Yande alaaji Yande koy nuyu Yande maa ngi koy nuyu Amina yaayu Yande Amina yaayu Yande waaw di nuyu Lukaar di nuyu Massar Sow ah, di nuyu Aysatu Massar Chéri Massar Chéri Massar moom mu ngi toogagul salle d'attente la ne waaye di nuyu ki nga xam ne ni tamit moom mooy Aziz di nuyu Modou Mané Chéri Naba tey daal waa kër gi laay nuyu daal tey moom nuyu naa képp kuy xëy Leewtoo rek. dama nuyu yow yow yow maa ngi lay nuyu yaa yaa ngi ci bande tous bi yaa ngi salle d'attente. nekkuma salle d'attente yaa ngi Massar ne jàppoo ci coon cool kuy daw. jël naa avance jàmbur. ah avance kan nga jot yow li ngay jot ci avance est-ce que da ngay rejeté rek wala yàgg la jox avance da ngay rejeté avance rek ndey Kumba Fall Abdoulaye Mbaye kaay jox ko avance ca état si. bu incha allah. <laughs>